alaykum à internet yu Diego Parle Foot nuy ziar leen di wax di abonné di activer cloche bi vidéo bu ñu leen ci temps réel donc que ça soit analyse yi def ci suñu match que ça soit vidéo en général donc da ci donc jox leen information également am information euh, donc muy que euh, Andy Diouf Habib Diara Sekou Mara Thierno Balde ñoo ñëpp am ay joueurs doon ay origine sénégalaise tay gis nañ ñu wolen ci équipe de France espoir donc légui ni le Thierry Henry génné listam donc ñoo ñëpp bokku ci mu melne que ne dafa am lu muy wane encore une fois dinañ ci ñëw mais li qui est ci yëfi ñëpp japon que eh, ki di Habib Diarra qui di Andy Diouf Cissé dans ci suñu contre Algérie wala Rwanda donc ñom ñëpp tey len tay ki nga xamantene ne Thierry Henry équipe espoir France donc mu nekk lo xamantene tay euh, euh don nañ euh, franchement. doon naa ko xaar parce que maa ngi leen doon wax sama vidéo yi passé ne leen Aliou Cissé lépp a mën a nekk mën naa bañ a woo booy yi mën naa bañ a woo booy donc man lii nii donc lu nekkul lu ma bett parce que fédération bi ak euh, ak ñi nga xamante ne ñoo nekk fédération bi liggéey bi war ci binationaux yi defuñu ko jéemuñu sax jóg boo bëggee dégg-dégg jéemuñu sax jóg jéem a convaincre kenn pour mu ñëw. ben exemple bi ma leen ci jox mooy bu yàggul ñu naan ay Sofiane Diop donc ñu ngi doon wax que ni ñuy wax ne Sofiane Diop bëgg naa ñëw Sénégal ñoom ñu génn di wax que ne mbiri Sofiane Diop ñu ci dara may laaj foofu sénégalais yi ndax Sofiane Diop moom mooy ñëw ne Aliou Cissé wala fédération bi kaay leen sélectionnement ma ñëw non non yow sélectionneur bi yaa war a gis que ne wala fédération yaa war a gis que ne kii am na lu mu la mën apporter sa équipe nga dem jëli ko mais pas jour bi mooy ñëw naan la sélectionnement donc mom la leni wax ci début bi nan li tax bo gisee Thierry Henry woo ñi ñëpp lolu nonu tay amna lu mu wone amna lu mu jéene lan la jéene moy ko fédération bi defuñu liggéey bi ñu wara def ci sono yi dañuy tok fi ñu tok kenn ku ne sa intérêt personnel mom mo la tax a jóg ci parce que développement équipe nationale bu ñu waxante deug Aliou Cissé ci la bokk mais pas fédération parce que bo xolé li ci ñëw ci ay sono yu ñëw bu dul woon Cissé duñ fi ñëw donc nga gis ay joueurs yu mel ni Andy Diouf ay Habib Diarra ay Thierno Bale extra ñu dem équipe de France espoir te ñëw ñu équipe A bi donc suñ équipe na équipe A Sénégal loolu day wane que ne ah, jëfuñu la ci war jéem leen a convaincre je pense que ne koo ci woone ko ñëwal ci équipe A bu Sénégal du ko bañ. mais bu ñu demee ba gis booy dem rejoindre équipe A euh, équipe espoir bu France mais pas bu Sénégal A sa équipe Sénégal A bi loolu donc dafa am lu réalité bu muy jëndee bu muy wone mooy encore une fois suñu dirigeants yi dese nañ lu bari suñu dirigeants yi liggéey bi ñu war a def defuñu ko ex euh, équipe technique bi li ñu war a def defu ko donc moo ngoog nii rek la mën a demee ay booyu talent yooyu donc France daf leen di jël waajal leen.